قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعض الباخين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين فإن ربك قال هو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم هود لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر نجر إلا على رب العالمين الله أكبر الله أكبر سمع الله لنا. ربنا ولك الحمد الله أكبر الله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 وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن وما نحن بمعذبين فكذبوا فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب ثمود المرسلين إذ قال لهم صالح لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر نجري إلا على رب العالمين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 الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم الله أكبر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 أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فرحين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما هذا من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فات بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأفر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 قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المرسلين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر نجري إلا على رب العالمين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

وأوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالخصاص المستقيم ولا تبغضوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كثا من السماء من السماء إن كنت من الصادقين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين ما وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كذبا من السماء إن كنتم صادقين إن كنت من الصادقين إن كنت واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المصحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كف فأسقط علينا كثبا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم ما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الزلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المؤمنين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأوا عليهم ما كانوا به مؤمنين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده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 فرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغني عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن ربنا ولك الحمد الله أكبر الله allahu akbar allahu akbar allahu akbar السلام عليكم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 الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم الله أكبر